le premier mars incha allah deux mille vingt quatre soirée bu mag di am foofu ak Ibra Nadio ak Xarim ñuy jóge fii incha allah dem fas yéene bégalante ak waa Gambia loolu lu ñuy wax ñun ñoo leen yoreen jukkal parce que chaque fois ñu dag yi tey ñëw Sénégal bii paa nag incha allah ñun ñooy dem pour ñu bégalante vraiment di ci woo Sénégal yi di ci woo Gambien yi di ci woo ñëpp daal ñu ñëw xam nga ñu bégalante foofu vraiment kontaan nañu baax baax. di baax di ko wax gars yi affaire bàyyi noonu lépp champion wax na ko ñu bokk waajal Friday incha allah foofu ci alliance franco ticket bi five hundred VIP thousand dalasi am nañ ci àll yóbbu jàmm gars yi bu mu yomb de ah incha bu ñu ko bu ñu ko gars yi yóbbu ah gàmmee <laughs> yi. macha loolu nekk ne diggante bu rafet boo xamante ni bi kenn amatul dara loo ci natable ndax jëmm ji ngeen gis mu toog tey dafa boole famille boo xamante ni bii. xam nga chaque fois dañ koy wax. mën na ni ñii maa leen boole muy ñuy ànd mais kenn mënatu leen tàqale ci àdduna ndax moom nekk na fi ba Amérique benn fan fansam wàññeeku ci ginnaawam mu jël otoom jox ñu gasoil bu doy li ñu dem leen ngee teewal ma Gàmbi loolu tamit ban àggee waa famille ñi nga xamante ni bi ñoom lañ teewaloon dañ ko rafetlu bu baax a baax a baax te jëmm ji moo ko waral tey ñi nga xamante ni bi ñoo jógee Gàmbi amul kenn kuy ñëw Sénégal di tuurànke wala ngay jaaxle te lool jëm ji moo ko waral kon jëmm ji ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla defal ko jàmm li nga xamante ni fa la jëm tamit yàlla na fa yàlla defal ndam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax